waaw mooy li ma la wax rek xam nga moo di bu fekkente ne c'était une pouponnière clandestine c'est encore plus grave parce que kenn warul mën a am sañ-sañ ubbi pouponnière te amoo autorisation yu ci war boo ko defee nag ba ngay xëy dem ci réseaux sociaux yi naan diw nii la tudd diw nii la tudd autorité yi ñooñu gën a xam lu xew ci réseaux sociaux yi ñu ngi seetaan xam na kon bu ñu gisee naka sadul noonu ci réseaux sociaux yi seen wareef moo di taxaw xool mbir moomu ndaxte nit toog na si page Facebook am saaga ñu dem jëli ko këram nit toog na si réseaux sociaux yi xas nit ñu dem perte ko fële ko kon nag bu dee nit nag na si page Facebook am ni moom yor na ay gone yoo xam ne mu ngi leen di yor di leen tegte di leen dundal di leen yor yow mi di joxe autorisation pour ubbi pouponnière ya waroon njëkk a jóg nga ne ah kii est-ce que am na autorisation wala amu ko bu dee amu ko. nga bindu ko nga ne ko ah soxna si kat condition yii moo war a tax nit ubbi pouponnière kaay nga motal ko nga régulariser wala boog nga jóg dem jël décision de justice ne dañ koy tëj parce que condition yi ci war nekku ci ndaxte bu fekkente ne nag condition yi déjà dafa war a nekk ndaxte xale xam nga ni xale muumin la nuñ koy waxee am na nuñ ko war a yoree am na espace bu mu soxla pour foo am na médecin yu mu soxla rawatina ay pédiatre parce que kuy faj xale pédiatre la loolu nag dëgg est-ce que motal nga pédiatre est-ce que motal nga infirmière est-ce que ce que est-ce que xam nga mu nekk ay question yu bëri yoo xam ne dañ koy poser mooy li ma la wax sànq tamit est-ce que xale yi ñu yoroon foofu noonu décision de justice moo leen yóbbu foofu parce que justice mooy décider kuy garder xale ñaar nit bu ñu seyoon sax bu tasee da ngay gis justice mooy décider kan kan si kan la xale bi war a nekk donc kon nag xale kenn du ko yor ci loo xam ne yoon amu ci sañ-sañ kon nag bu dee loolu yëpp amul kon lii day doon affaire bu gën a garaaw mais nag comme enquête baa ngi wéy nu ma ko waxee sànq bu man je préfère bañ ci sori trop parce que euh, lu ma si jàpp ni mooy lu am rek moo di ni suñu responsabilité ñun ñëpp la collectivement d'abord benn mais du point de vue aussi état te responsabilité état moo ci ëpp waaw mais am nañu ko xalaat c'est c'est normal lee am na ci responsabilité kenn génnewu responsabilité am ñii jël seeni doom yóbbu ko foofu am nañu responsabilité kenn génnewu ko mais man dama jàpp moo ci ëpp parce que tey jii nii bu ma ubbi woon baar te amuma autorisation état da ko war a tëj bu ma ubbiwee euh, cabinet médical te awma ci autorisation état ko war bu ma ubbiwee lépp lu nga xam ne lii dafa laaj ay autorisation te awma ko mais yoonu état mooy ma tëj ko te loolu nag yoonu état boobu noonu nag ñun la parce que d'abord ñii dëkk si euh, kii wuñu ko nu mu tuddati euh, signalé wuñu ko ñoom aussi mën na am seen responsabilité foofu lay nekk parce que man bu ma dëkkee ci koñ gis ñu dëkk ci koñ bi ñuy def naka su dul noonu sama devoir mooy ma signaler ko parce que loolu c'est un devoir citoyen sama devoir mooy ma signaler nit ñi ah kii kat mu ngi def naka suñu noonu autorités yi ñoo xool mais bu fekkente ne kenn du wax parce que fii da ngay jàpp ni boo waxee ñu ne la da ngaa naafeex da ngaa dugg lu sa yoon nekkul sama yoon nekku si mooy lii rek malheureusement situation yi day am mu doon ay drame yu garaaw ñu toog di ci waxtaanee te boo deful ndànk lu si gën a métti tamit Sénégal mooy ñun benn mbir mën nañ ko waxtaanee ñaari fan ñett ba sa ñetteel ñu dem ci beneen.